asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fa leen toll ci xarnu bi Khadim Gueye fekk na fu ngeen toog ci réew mu mën a doon ah, jox la loxo bi wala conco bi loolu la ci gënal rek corona bi nag ah, yéen a mu gën a xam dégg naa delta bi mi ngi ravagé Sénégal di agsi xaa yàgg neen ko wax de bi gars yi bàyyee man bàyyiwuma ne leen respecté leen mesure barrière yi nañ dem ñàkku ji nañuy sol masque yi lii bu leen ko defoon mooy ngëneel Sénégal kenn mënut leen a confiné Sénégal kenn mënut leen tëj kër yi parce que da ngeen dem di sabab lu ji di wuti lu ngeen jox seen njaboot yi du matin au soir donc tëj leen ci kër yi état waru ko mën a def bu leen obligé état nag mu leen di confiné jàpp leen état bi parce que feebar bii ni mu ñëwee yàgg nañ leen ko wax da ngeen ci jàppale état bi kii du feebaru Macky sàll kii du feebaru. gouvernement mais c'est pour tous les sénégalais donc bu voulez ma liberté bi aussi a minimum nécessaire def leen ko yi a ngi joy naan ñak yi dafa manki parce que barki dem lañu tégal fi nangul leen fa dam nangul leen fa lan mo waral loolu hmm? dem leen ngeen ñakku ji protéger déplacement dund ngeen at yi ngeen dund ba àgg fi ngeen àgg dafa naa benn at wala ñaar ngeen renonce ci benn ngénte benn takk benn gàmmu benn màggal benn nàngam mais du am lan lay wàññi kilifa diine sax ñu ngi leen di jax di leen jox ay règle yu ngeen mën a jàpp yéen yéen ñoom ngeen gëm ngeen kenn ku ne am nga sa gëm-gëm mais topp leen te xam ne boo ngeen ko defee bénéfice sénégalais yëpp la waaw bu leen topp dof yi ñëw naan benn tubaab moo bind lee génne naa ko dugal na fi génn nangam dañuy wàññi njur yeeg dañuy nangam nangam dañu leen lii ay non vax déedéet weer yee ca gannaaw yaa si cela six mois Khadim Gueye toog na fii ci vidéo ku moo seetaan yàgg seetaan gis nga ko newoon dem ba Europe bi ñu nekk day nekk passeport daañu ko créer tey jii loolu yàlla def na muy réalité muy green pass bi nga xam ne si moom lañ crée mu taxaw tey italien bi français bi Euh, allemand bi bu ñuy bëgg a déplacer ci ci intérieur Schengen bi ah dangay am li ñuy wax green pass mi ngi mel ne passeport boo xam ne sa portable bi moom lañ la ci won sax boo demee def ñaari vaccin yi dañ la koy yónnee automatiquement sa téléphone boo ñëwee ni ngay présenter sa passeport noonu nga koy présenter pour que nga mën a dugg italien bi dugg France France bi mën a dugg Italie wala euh, Allemagne wala ci vingt 27 yi nga xam yépp ñoo ngi ci ci ci Schengen bi Italie à partir du 5 ci mois le 5 août restaurant bar euh, stade euh, concert théâtre le loo xam ne fait green pass bob doo fa dugg newuñu kenn am nga kenn ku ne droit hein, parce que les ni ngeen leen di Sénégal ñu naan bu leen vacciné kat ci kat am nañ en Italie en France am Allemagne fu ne lan lañ def yow yaa bëgg seetaani match be Inter ak Juventus boo amul green pass ba boo ñàkkul doo fa dugg toogal sa kër nga seetaan ko fa tëjul doo wàll kenn kenn du la wàll doo dem fenn bëgg nga dem ci restaurant ba nga reeri fa yor nga green pass yoroo ko dowal sa kër nga toggal sa bopp loolu mooy wax ji te dana àgg Sénégal xam nga waxoon naa ne ko ci Europe ñëw na ci Europe dina ñëw ci city par city réew par réew dëkk par dëkk ci Europe dina ñëw Sénégal da dem ba am na foo xam ne kaar yi fii ci kanam boo fay yéeg walla train boo yorul green pass boobu sa téléphone bii nga mën leen ko génneel ñu gis que ne yow njëkkoon ñaar yi doo ci yéeg boo mënee dox nag cinq dix kilomètres vingt kilomètres sa problème la bu la neexee bul bul bul bul ñàkku loolu nag dina àgg Sénégal par force donc dof yi leen wax dañuy wàññi ay njurët yëpp golo yooyu ñu leen di wax bu leen ko gëm dem leen ngeen ñàkku ji. gis ngeen ravage bi nga xam ne si delta bi mu ngi koy def ci sénégal li ñu leen waxoon ñi dof yi naan leen ay gëmuñu coronavirus parce que dalagu leen wala dalagul seen mbokk voilà léegi ñu leen wax ay ay sojak ay grippe ak yéen képp ku ci grippe noonu leen ko yaay waxee coronavirus nga yor demal ñu wër la ñu lijjanti la bala ñu lay yóbbu hôpital nag dina këpp ay machine demal ñu jam la ñaari pikir yooyu ah nga nekk sa jàmm ak salaam loolu mooy li wér xaa bi ci jóg voilà tey nag li andi moy sama waay gaynde gi le lion légende vivante bi nekk Sénégal kan la benn tur la yor ak benn sant Youssou la tudd sant Ndour kan moy bayam Ilimane Ndour yaayam nday soxna mbuub la tudd voilà mi ko kookoo tax ma ñëw ki nga xam ne bis bu génnee woy rek hmm? <laughs> ndeysaan ñi naan ko da nga war dem pension da nga war a bàyyi xale yeeg da nga war a joxe lenge yi mais ay lenge da koy jox ñoo xam ne si mën nañ ko atam mais yow booy joxe lenge duñ la ko may mais aar gaynde musu dem fu la ñu naan pension musta am baat bi wute na ak footballeur xam nga footballeur day dem ba trente ans trente et un ans deux trente deux ans mënatul dara physiquement du ko attan hmm? kooku day reculer Maradona demoon na toog toogul parce que état am la Maradona bu mënoon am soixante dix ans di football balaa ko yàlla di jël Messi mi fi toog tey bu sañoon dana dem ba soixante dix ans waaye soixante dix ans kooram boobu moo ko attanul waaye koo xam ne lii lay joué muy voix hmm? nga xam ne bu la ko dóoralee tey ak ba mu la dóoraloon dix ans yee ca gannaaw amul benn changement lu dul da ngay toog rek enjoy kooku moom la waa jii may wax tey ci moom. ñëw moom la yor moom la ko yàlla may mu neex leen ak mu naq leen heureusement ba nga xamee nag ñim neex moo ëpp foofu ñim neexul waaw ndax tey Afrique waxuma la Sénégal mais Afrique wax leen ma ban artiste moo fa dajale ñetti génération ñetti génération laa la wax kooku Youssou la tudd Ndour la sant yaayam ndey soxna mbuub lañ koy woowee baayam Ilimaan Nduur la tudd waaw wax leen ma keneen ku am faculté boobu koo xam ne ñu ngi naan dafa war a dem dafa war a tiire dafa war a bàyyi te saa su génnee ndeysaan ah Youssou no Youssou yaay gor gaynde <laughs> waa ji gor la quoi mais yéen bala may agsi mais xam ngeen Youssou Ndour coronavirus bii ma leen doon wax léegi ñàkk yeeg masque yi euh, affaire yi nga xam moom moo ci jiitu ba ba affaire yi commencé ci la Youssou Ndour jël activité ak yépp ah teg ko ci li nga xam ne sii coronavirus bii mais Youssou dañ ji waroon naa dégg buuba di nuyu di ko ziar parce que moom moo produire li nga xam ne si mooy mooy mooy clip bi euh, morceau bi nga xam ne single bi nga xam ne si anticiper album bi nga xam ne balaa dina génn ok te clip bi def naa dina ñëw ci fan yi incha allah rab bi di ngeen ko gis mooy clip wàññi ko <laughs> wàññi ko te ci wàññi ko bi dina ci ñëw mais li ma bëggoon wax mooy mais yéen sénégalais yow dama leen laaj quoi di ko laaj Youssou Ndour di ko laaj Bouba nduur di ko laaj Ngoné Ndour di ko laaj euh, ñëpp ñépp ñi xam ne ay frère ak ay sœuram lañ pour ne pas citer tout le monde ak ay doomam Birane di ko nuyu de passage xam nga seet Youssou Ndour mais ñaata million la Youssou Ndour ci coronavirus bi man boo doon xool ñuy estimer Youssou Ndour defe naa moo ëpp lu mu perte ci ay millions de francs CFA ci coronavirus bi ci ko xamee munoon na jouer comme je m'en fous temps yi nga xam ne demoon nañ ba nga xam ne Sénégal départ nañ ba fàtte woon nañ corona bi rassemblement yi partout politiquement et euh, lu la neex Youssou Ndour kese lañ gis génnul ne damay dem si Sisas wala damay dem fële Grand Théâtre ma profité ci di encaissé ay millions wala naa ci profité yéeg ci avion bi dem Europe encaissé ay millions ñëw mais Youssou yaay gor Youssoo ñëw toog renoncé ci loolu lépp toog Youssou dem na ba gis nga TFM boobu nga xam fii tey fi ñu ko doon defee mu wóor na ne fii mën nañ fa sax dix dix personnes techniciens yi kese mun nañ fa nekk ak super étoile ci kaw seet bi comme ni ñu ko doon defee Youssou nduur à travers les sponsors yi ne ci ginnaaw. kese yu sooy tëgg nga sa coca cola wala sa fanta wala sa wave wala lu la neex génn fa rek c'est des millions de Français. CFA Youssou Ndour renoncer à toutes ces choses là ñëw toog ndax respect bu doomu aadama ji am ci bakkanu doomu adama bëggul la jël benn responsabilité ah ci loo xam ne danañ ne kat Youssou Ndour mii liñ doon aaye ma nga ca woon Youssou yaay gor dellu di ko waxaat du ma ci sonn du ci tay waaw ñu dem nag ba sénégalais yi xam nga am na bu ngeen rappelé woo ci ginnaaw dama leen di wax tuuti Youssou Ndour am na ay temps nekkoon na fi ministre de l'état waaw yor li nga xam tourisme ak la culture mais sénégalais yu bare y compris moi-même triste mais dama doon xool Youssou Ndour ministre mais di imaginer mais mais Wadi, ji ñak voix bi mën ñak artiste bi ndax politique bi nangu nako ci ñun mais ñu respecter li nga xamné choix am la won peut-être mode la won bo xam da ko use pour reposer pour se reposer parce que moom toog na fi mun leen man dem naa ba ci way lépp loo xam ne ci musique soxla naa ko am naa ko te won na leen ko Sénégal yépp gis na àdduna yépp teg na seen bët ndax réalisation Youssou Ndour mënoon dundu li des ci dundam waxuma la moom mais ay sëtam sax dootuñu toroxati kooku ba mu nekkee ministre gaa yépp di ko coow mais yéen a ngi rappelé wu jour bi Youssou Ndour dellu si waatee way génne way bi nga xam moo namoon naa leen mais est-ce que dégg ngeen waa super étoile man dama gisa gaynde yi ñoom mbay leen nuyu ñoom ñëpp vraiment ñoom Jimmy ñoom Assane Thiam ah, ñoom Moustapha xam nga ñoom <laughs> yow mais gars yëpp daal parce que bu ma bëggee lim super étoile yëpp day gudd mais gars yi buñ ñëwee waxuma la public bi mais gars yi liggéey ak moom ñi nga xam ne même Youssou bu nekkee ministre ñoom ñu ngi nekkoon di répéter chaque jour muy gor soo xam ne mënoon na ne gaa yi kenn ku ne lu golo xam na boote doomam mais teewul gars yi li mu séqoon na ñoom mi ngi ko doon dox gars yi dem mel ne équipe di entraîner chaque jour di répéter loolu lu ngeen xamul woon ma leen koy xamal Youssou di dox ci loolu di leen jox li mu leen war a jox mais bis bi ñëwee rëcc ne gars yi namoon naa leen tëgg ko mais gis waa super étoile yi dama bëgg ngeen dem ci YouTube ngeen tàppe namoon naa leen bu Youssou Ndour ngeen dégg super étoile explosion bi am waxuma la public bi mais musiciens yi nek ci groupe bi mais expression bi liñ amone yépp dañ ko guenné mu wóor gaay gars namone dañoo ñom en tant que musicien en tant que gaay yu liggé ak mom depuis 40 ans waxuma la nak public bi nga xamné mom waxuma la namm ko mais dañ ko xiifoon mais morceau bob ni ko gaay consommer consommé woon donc Youssou Ndour bi mu ñëwaatee mu toog Covid 19 bi ñëw Youssou bàyyi rendez-vous international yi xam ngeen né Youssou Ndour xam nga ré bomb <laughs> ñaata million doon encaissé yi au niveau international ah ñaata tour lañ doon def ñaata xaaliss la waji ji renoncé ci affaire bobu waxuma la sax ak Super Étoile mais invitation yi koy invité ci réew yi war ko fay avion beeg hôtel beeg caché bi yooyu yëpp Youssou Ndour bañ a daje. tout récemment rek dégg naa boobu di wax ne woo woon nañ ko France fii benn émission bu mu woon participer mais bi mu yégee ne fi muy war a ñëw dafa am public bare rek daf leen wooneel du ci kenn du ko defati kooku waxuma la yërmande bu mu am ci population ci Sénégal gi moom rek la bëgg te won nañu ni mu ko bëggee ah kooku mu renoncé am yërmande ci réew mañ ko woon bu naan bu ko neexoon ñëw def def benn cinq minutes am ñu jox ko benn dix mille wala trente mille euros mu mu def ko ci poosam ñu ko faat ko avion mu yéegaat Sénégal mais sa waay yaay gor déglu leen namoon naa leen namoon naa leen nag jàll na ñu ñëw ci coronavirus bi yusu tok ñëw na fii wax na leen ko parce que neen la junj borom xel war ngeen xam lan moo tax déggu te ba ngeen ci ndakaaru gee bu ko neexoon sises mu grand théâtre wala sax ba ci fii tey fu ñu koy defee ci télévision boo xam moo ko moom sa waay ne leen damay jël sama temps jël sama repos repos boobu ça veut dire que ne bugguma dajale ay doomu aadama ëllëg dara am Sénégal comme lii fi xew instant yi minute yi jour yi ah Youssou Ndour di bokk ci loolu dafa naa ne mun nañ ci takkal ku nekk ba mu des Ndour Faboli kooku du am waa ji day xool fu sore te li naa ci ñëw bu ci kanamee ngeen gën a xam vision wu Youssou Ndour c'est pas parce que dama ko bëgg kooku dama ko nëbbul làquma ko Youssou Ndour fans hmm? bëgg <laughs> ko mooy sama idole mooy sama lépp kooku dama ko aw awma ci sax sentiment moo tax képp ku ko laal fii ci réseaux sociaux bi dafa mel ne mën nga laal te kooku duma ko may kenn duma ko nangu dinaa ñëw daal ci sa kaw kooku dafa war a clair oui surtout ñi nga xam ne dañ ko war a wàññi quoi parce que <laughs> li tax mu woy woy bi ci laay ñëw mooy bañ jógee ci namoon naa leen dañ ko bàyyi Youssou ñëw na teg temps yëpp déggu leen Youssou Ndour fenn ci ay bagage mu toog jàpp njaaburam xam nga mais ndakate ma ngay bind teg man daaw ndeysaan yàlla def na daje nañ Sénégal waxtaan xam nga sawaay xamaloon ne mi ngi bind yu bari di denc quoi waaw mais di sant buuba nduur ci côté boobu parce que buuba dox na ci bu am solo convaincre artiste bu mel nii xam nga dem ba indiwaat ko ci ay décision mu am tuuti lum mu ca bàyyi la ok dinaa leen may dinañ def album bi mais du ma def lenn loo xam ne si actuellement dina dajale ay nit ki di rakkam aussi dox ci dox bu mat di producteur nangu produire li nga xam mooy clip bi ah moy moy moy moy moy single bi war a produire album bi aussi te ñi ñuy annoncé xam nga nee li cin bu naree neex su baxee xeeñ dafa naa ne album single bii génn <laughs> fan yi muy wàññi ko <laughs> ñëpp di ci coow te et xam nga lan moo gën a jafe mooy gaañ nga dem ba am benn état bi ci ci aar. ñu bare dañ taxaw ay affaire wu ay 60 ans ces choses là Alpha Blondy ñaata at la am Aretha Franklin ñaata at la amoon waxoon naa leen sama benn vidéo fii am na ku ñuy wax Vasco Rossi il a 73 ans mais day yóbbu mille personnes ci stade ba booy bu juddu boo xam mun tey indi 10 000 personnes mais kooku fan lañ ko teg nit ñoo lay bëgg ki mën a dajale trois générations kooku ne réew mu ne dañ fay wàññi dañ leen di compter Afrique Youssou Ndour moo ko fa xëy na peut-être Alpha Alpha yi mën nañ ne mu ngi mi ngi mi ngi mi ngi dawal ba léegi di dóor ba léegi Alpha mën nañ ne mën na dajale mais Ivoirien la mais Sénégal kan moo mën def must am Youssou la tudd Ndour la sant te lam am gañe ko Alpha Blondy gañe ko ñeneen ñi gañe ko donc nañ nangul li nga xam ne si yàlla moo ko def ci doomu aadama ci waa ji buñ toogee ba ne nañ dafa war a di nangam nangam xanaa mu noppi ne fat loo tax waxam bariwut jëfam bari doo leen ko dégg muy tontu ne rien donc mën naa ne sax ci ay wayam lay tonto te way bi bu génnee nga gis ñu adressé ko ay nit coofu laay ñëwee nag ci woy yi xam nga woy na fi bojo bojo ñu naan diw lay waxal ak diw lay waxal ak diw génn ne man lay waxal nàngam mais yéen ñëpp ci yi képp koo ci waxal nekkul nit ku tekki dara loo koy wax waaye man du ma wax ak bojo bojo donc Youssou Ndour day tekk ay mots day tekk ay paroles yoo xam ne ci ay woyam boo toogee am seetlu am déglu ñëpp lay waxal kenn ku si nekk dangay xool nag mais parce que day suivre li nga xam mooy tendance bi li nga xam mooy actualité di ko def te loolu dinaa ci ñëw ak beneen artiste boo xam ne si mu ngi euh, Youssou influenceur la ci moom Youssou da koy influencer koo xam day dem di gëstu ay woy Youssou Ndour parce que Youssou c'est le boo xam ne amul looy mën a xalaat yow mi may xool wax ma ban sujet nga mën a dégg te mënoo dem ci way Youssou nga fekk fa man wax na ma ko moom ci boppam nee na ma keroog ndoy ban mi ngi toog taxaw mu ne ma ndoy yow mii xaat ak ndoy baan mii seen thème yi ngeen def wax leen ma ban tem ngeen def boo xam mën nga dem samay way doo ko ci fekk man dama xool ban xool samay thème yu ndoy baan ak yu keneen ak keneen mais lépp laal na way ba dur na te loolu dinaan ko démontrer ci kanam tuuti quoi ak beneen artiste ok donc mu woy woy bi nga xam ne si mooy <laughs> wàññi ko wàññi ko parce que avant ñuy agsi ci wàññi ko waxoon na fi ne leen bojo bojo gars yi taxaw mu génnee réseaux sociaux ñu ne mais Youssou Ndour réseaux sociaux am ñu génn saagakatu nday yi tout ce que tu veux génn nañ ne Youssou Ndour ñoom loon wayal déedéet mais Youssou Ndour ba mu woyee teewul tey jii ba fi may waxee ak yéen réseaux sociaux boo ci duggee du ña doon wax ne Youssou ñoom la woyal de ñeneen ña ngi fa toog bu ñu reeree ba suur toog ci seen lal am nañ sagaru connexion toog di saaga ndeyu jàmbur di saaga bàyyi jàmbur kooku am na wala amul. di woote pour que ñu dellu si loo xam ne Sénégal rek lañ ko may yeneen réew yi may ñu li ñu toog fi di saaga ndeyu président de la république di saaga ay jabaram di saaga ay doomam di saaga di n'importe quoi dara leen fet ñu naan Sénégal amul démocratie kooku Youssou daf leen ko woyal teg ko woyul pour diw wala diw wala diw daf ko teg comme ni mu koy lancé ñu jóge foofu mun leen bukki yi bukki yi dañoo bari buki yi kenn ku ne bëgg fi nekk bukki gaañ bu dee ay bukki ngeen yéen ñëpp bojo bojo un nekk ngeen boj nek nga bojo bojo ne yow la nga weer deux mu ne réseaux sociaux nga ne yow la ñu ne buki yi nga ne man ci bukki yi laa mais bukki dañoo bari parce que yow mii di xool boo demee ci sa famille ak sa entourage am nga ay buki yu fa nekk am nga ay bojo bojo yoo xam ña nga fa ah donc sa waay li muy dóor <laughs> da koy teg mais da ngay yaakaar ne actualité boobu muy wax diw la wax mom lay waxal te waxul ak diw momu mom meuna tontul bopam à travers ses chansons parce que lol la yor nenañ la ah <laughs> lu jot ci lu juddoo ci tag su naawul jaxali bokam moko way ci ta ci way la juddoo mom la xam mom la meun lan lay ñew fi di tek ay réseaux ci naan day tal ay tam di tontu ay golo yu tekkiwul dara te bu doon ne fekk ñi nga xam ñooy ne fii di critiquer Youssou Ndour nga ne ma wax ma ci benn nit boo xam ne signifié na dara wala tekkin na dara ca Sénégal amut ay vaurien ay sàcckat yu ne ca Amérique gi ay genre Ousmane Tounkara yooyu ngeen di dégg ay vaurien yoo xam ne c'est des voleurs de voiture yoruñu dara gis nga woy bu bees bi wàññi ko wàññi moom laa la gën a waxal gis nga mi ngi ciy rey boppam bërki dem Ousmane Tounkara xam nga loo war a dem waxuma la wàññi ko bu ndaw danga ko war a wàññi bu ngand sàcc nga bu tekkiwul dara est ce xam loo fenkat boo xam ne fii nga toogoon ne man citizen américain la yor naa passeport yor fii la àdduna toroxal la walking permit nga yor parce que dem lañ la tëj ci kaso bee gaynde génnee la ndax sa famille bee nga leen di kat ci loolu Sénégal ñoo la jiiñ terroriste kooku dinaa ci ñëw tey ci Youssou Ndour laay wax daañu wax ba wax leen Ousmane Tounkara ba porté woon plainte état wu Sénégal ak lam ca jëlee kooku dinaa leen ko tegal fii ngeen dégg ko Khadim géey lu mu leen di wax da koy teg journaliste bu tudd Baba Aydara document yi ñu ngi fii kooku tey du wax ji dañ fa ñëw mais pour wax la wàññi ko hmm? Youssou Ndour bu la neexee nga ne yow la ko wayal mais buñ la wàññi ko wàññi ko yow rek yaay kàccikat bi réseaux sociaux yi sa gars yi ñoom xurum xaq ak seen tous ces gars là c'est des politiciens yi ay Ousmane Sonko du ces gars là bis bu nañu accuser fi nit loo xam dara amu fi wàññi ko lañu war def yeah waa ji ñëwul ne day lee day wax ak yow parce que sa existence tegu ko leen di wax ci moom surtout mbaam mu mel yow toog yoroo palto yoroo place yoroo tous do fëgën do dara toog fi naan sa baay yor na Sénégal te buñ demee da ngay loué boo demee Sénégal semaine ba nga fay toog bala ngay daw da ngay loué appartement kooku mooy wàññi ko wàññi ko voilà mi ngi mel ne rek mbër mi demoon ne ah, le roi des arènes yëkkati na ak benn loxo ay benn xar lay par jour ak Obama mu nga doon tourné ci Pikine mu koy gis yusu buy wax dafa romb maami sa maam yow ak ñu mel ne yow sénégalais lay waxal te gis nga li doon waxee bojo bojo bu gis nga woy bi bu mu 24 heures après ak di di wax buuba ni ko organisé sortie bi aussi kooku moom dañ ko ci kàccoo voilà ñëpp ñi ngi ne wax ne fi mu ne ñi ngi xaar album ba sa waay bomb la war a nekk parce que ñu ngi annoncé album bi te Youssou bis bu génnee gis nga bu bis bu woyee yàlla dafa def ci moom loo xam ne bis bu ñëpp woyoon ñëw toog bis bu ñëwee ndeysaan génne voix boobu rek ah ñu fàtte lépp lu fi jaaroon kooku suñu borom moo koy def ci doomu aadama kooku def na ko ci doomu ndey soxna ji ak ilimaan ko kenn mënu ci dara gis nga ñen laa yërëm noonu Youssou Ndour Youssou ku la bañ dama ko yërëm ay genre tunkara yeeg baadoole yu tekk espèce activiste yoo xam ne yaxuñu seen ndey seen baay du seeni askan du dara lu servir lu dul toog naan ci toog ci ay télé damay yàq deru Youssou Ndour wala dàggam ñañ koy leen koy laaj sax dañuy toog leen reetaan parce que vous qu'est-ce que vous avez foutu pour le Sénégal rien sama baay amna sam cent cent ci Dakar te bu mu ñëwee damay appartement xam ne kooku ah waxuma la yuus nga ko kok ko mais kooku pamphile la yor yoru sax bato bato gaawul <laughs> gis nga kooku ah kooku damay roose tànk yi mi mel sama benn copain ma draaye ko Frank maa ngi lay nuyu di kok wax jam nga jege jam sa waay xam nga dama daan topp avant way yuus ndur bi dama doon ñëw fu mu jaar ma jël satala ndox mu sedd bu ma quoi parce que da don lakk da xam nga voilà léegi nag boo waxatee jam ne ko wàññi ko rek Youssou daf ñuy ñëw simplifier les choses voilà Youssou Ndour dina fi ni fay news yi kat ci kat yi ne fii ci réseaux sociaux beeg ñoo xam dañu ñëw di la nettali ay bagages yoo xam ne yow da leen di ruus doo xam noo leen ko waxee mais ab Youssou tegal na leen ko ne leen sa waay mënoo mën naa wàññi ko quoi da ngay am noo koy dóore rek ci biir science dana jëlee quoi xam nga. dana xam ne yow mii dafa la jàppe dof ba di la nettali yenn yi jàppe la fou donc nga jël ko nga teg ko donc yusu <laughs> li gën a ci yusu ndur moy xool leen ci bojo bojo bukki yi bañ agsi ci ko ban artiste sénégalais wax leen ma yéen ñi may seetaan na ngeen wax ngir kan moo ci génne titre da dégg waykat yi génn maa ngi lay woo maa ngi lay nuyu tagg sa ay maam kërëb ko nga jël xaalis may ko toutes ces choses là ok mais doo fu dégg benn titre boo xam dana nekk loo xam ne actualité la ñi dañuy nekk di ci discuter di warante non diw lay waxal wala diw la war a lancer message diw lay tontu wala diw te diw moom la koy wax bu subaa moom moo koy wax keneen man am na ñoo xam dañuy ñëw ma ne waaye ma xooloo gars yi du ma wax ak ay bojo bojo quoi xooloo tegal fu lee voilà wala nga wax ak man ku mel ne Franck <laughs> Ba maa ko déglu ma frère ne ko gars yi wàññi ko quoi wàññi wàññi ko xam nga loolu yëpp mais xamul ñooñu. donc Youssou dafa ñuy jox chemin bi Youssou dafa ñuy illuminer Youssou on a gis nga dundam dafa am solo dundam dafa am njariñ dafa am sénégalais yoo xam seen dund dafa am njariñ ay doomu aadama yoo seen dund dafa am njariñ ñoo xam seen dund amul njariñ genre Ousmane Tounkara yooyu ak ñu mel ne moom ñooñu seen dund ban sens la amal Sénégal ban njariñ la amal Sénégal mais boo ne ma ay Youssou Ndour mais seen dund dafa am Sénégal emploi way yi idée yi xalaat yi Youssou mooy dem di xalaat foo xam ne ñun mënuñu faa xalaat parce que da nga naan waa ji woy na lépp nga dem ba ne defe ne am xel ban sujet la Youssou Ndour woyagul yow doo ci ñëw mais Youssou day dem ba ci détail ba mu dóor la ca woy mooy lii mu la tegal wàññi ko wàññi ko voilà donc <laughs> foofu laa yem ci ci ci affaire bi en attendant parce que buuba xamal nañu ne waroon na ñëw fii tax. temps yi moom dinaa ko jot incha allah def ak moom benn interview boo xam ne si ci morceau bi wala ñu xaar ba album bi ñëw ma wax ci ak moom parce que war nañ déggante maag Bouba nduur moom mi xam ne si moom mooy moom grand bi moom yaa ma gën a xam ko voilà yàpp na ko ñeme na ko ba taxaw dem produire ko taxawal affaire boobu tamit def ci promotion bu am solo ci affaire boobu leen wax ne gis nga léeg-léeg ngeen gis ci ku R boobu nga xam boo ñëwee yow sa portable bi ak muy demee mun nga prénoter li nga xam ne si mooy single boobu nga mun ko am parce que musiciens yi aussi leen jàppale voilà parce que tamit loolu liggéey la c'est l'argent ñi liggéey ci studio yi ak musiciens yi ñëw di tëgg ak yuusu ak ñoom ñëpp am na retour bu ñu war a am bu leen toog rek nekk ay baadoo la yéen tamit ah morceau bi ñëw na ngeen téléchargé ko toog di ko déglu ko happy bu ëllëgee sa copain buy kàcc yi xamu woon noo koy wax nga naan ko wàññi ko wàññi ko te yuusoo la ko jox mais joxal yuusu ce qui appartient à Youssou ak yeneen artistes yi ñoom tamit ak technologie mi damay ngeen di avancer ci côté boobu donc Bouba daañ ko jéem a am budul ci single bi daañ ko jéem am ci album bi parce que annoncé na bala yàgg dina génn parce que neen la ciit bu ndaree neex bu ba xeexeeñ dafa naa li ñu jot a génnee ah bu album bi génn daañ ci jàng leneen kooku mooy Youssou nduur xale yi ak sénégalais yi dañ koo namm dañ koo xiif loolu mooy kii bés bu demoon ba xam ne kenn bëggatu ko kenn xiifatu ko singalam bu génnoon kenn faalewu ko mais au niveau international ñoo ngi ciy wax ci benn singal kooku mooy bu amoon quatre-vingts années faale wuñ ko xam nga lu soxla baat baax te Youssou bu yuuxoo képp ku doon way da noppi kooku yàllaa ko def ci doomu ndey soxna ji ak doomu ilimaan ji kon nag léegi ma ñëw dafa leen benn break ak si ak artiste bi nga xam ne si moom laa leen bëgg a présenté nga xam dafa inspiré ci moom di ñu jox ay actualité kooku ñuy wax bu Boutique Laye la tudd kii mooy référence am te naa leen ci tegal ñaari morceaux yoo xam ne da ko war a commenté ak moom ñu déglu bii après ma doogu ñëw commenté ko ñu doog ak si deuxième bi ma doog leen di tàggu peace. Mr. Boutigolaï Zik Buzz Music l'histoire retiendra bismillah ñu door tënk coow li yëpp ci acte dose fi mu ne réew mi yëpp a ngi dal bu jeexul itam jël na pause yàqu-yàqu yi bëri na lool daan daj sax réew mi wërngal këpp diaspora bi sax di marche ñi ci dee maa ngi jaale ñëpp li taal daay gay benn plante ci war a wuy ñu jël ko denc Ousmane Sonko la aji bés mu lëndëm te jant war a fenk askan wi fipp ku ci nekk sa mer nga boot ñi naan Free Sénégal suñu démocratie duñ ko noot Auchan yëpp a jeex ñëpp a xiif réew mi amul kaañ Antoine jonn di ñu tëkk man daamal Kajoor moom a gaañ lu jiin njaaga yennay njaag def seen police jéeri def ñu tom di dóori bal nervi gàddu yet recruté mbër yu ñàkk jom gis nañ alkaati visé bal ci bopp dóor mu ne lañ lu ngeen fi def ci lu bon ñu filmé te soxla wu ñu sinaa bu ñaax xarañ ñoo ngi suuli néew aji sar mu ngi free nickel du doomu maki du doomu sonko bu xoosu politique ni mel apr réew mi ñoo ko bokk de suñu démocratie la ñuy xeex senghor juuf ñëpp dem e maki nguur day jeex pastef amul lem leem friwul ne ndaw ñi réew kenn du yore ni réew mais kenn du wute ni réew ay nervek samba boy di si violence du mujj ñu moom dañu rax askanu jamar la takk der doni non noon job rapper yi photo wu grenade takk le 8 mars yana waar deret tuuru dagg loxo ci histoire da mœurs dëkku ba mbag baay abbé Jacques bu kuntëg cheb rafaal dëkku Maodo ak Limaamu Laay ay xeer waruñ koy rafaal dama namm 2002 ba Diouf di retrel bu ba Jóob ngay seen drapeau bi ca kaw xametoo ba Njaay ak Jóob jabaru Sonko toggul dëxin bu amul kaani invité ma rem te mu bañ a xeeñ suñu mbokku chrétien yi dem ñu ngi ci carême wax bu àgg de dafa ko moom te paaka dagg te génnul ci mbar mi eh! mën a laay doo ma dégg te yoroon nopp gar mi armée française bugguñu ndimbal turé nañu page yi yàkkamti suñu réew mi tax nga ñëw sàcc suñu pétrole gaz politique yi ñoo ngi free yenn manifestant yi ñoo ngi jeel presse état presse opposition réew me ni mel ngay gis fake news yi nii naan viol ñi naan complot débat politique yi fii ngay gis balak Modou Lo Sénégal di à la une ku wax ku waxutoon ñëpp a réew Afrique yëpp ñu naw ci démocratie nga la buñ ko yàq foog ñu sàmm suñu république bi drapeau bi flotte ca kaw non rafetul ci ñun ñu jote suñu biir armée bi taxaw le peuple est le seul souverain ay dëgg la c'est la lutte libère mais lu fi yàq ñoo koy fay Macky nen du ko min bëri te Adji warul tax ñu xeex Ousmane Sonko simil sa yére seddal sa après mu jeex après mu jeex après mu jeex fi amoon daaw fétig ba lañuy xaar ba tey waaw mi ngi noonu dégg ngeen na euh, morceau boobu def naa ne xàmmee ngeen ko bu ngeen déggee rythme bi rek war ngeen xam fan la jógee ah, super étoile ñoo tëgg loolu euh, butigu ñëw teg ci li nga xam mooy teg texte boobu nga xam ne si ah. gis ngeen événement yi amoon Sénégal tout récemment loolu moom la nguur si ñëw toog leen xoolal jour par jour lan moo xew mu ñëw woyal leen ci jël nag grand ba nga xam ne si ah, lu ci bare da ko woyoon te woy bu ne danga war a toog nga décortiquer ko xam ne Youssou lépp lu mu woy njariñ ma nga ca lépp lu mu woy leçon la lépp lu mu woy am na njàngat bu ñu ci war a jàng donc làmb ji fi amoon daaw xam ngeen loolu dégg ngeen test bi kenn ku ne nekk Sénégal ku fa nekkul tamit gis nga événement bu amoon lii la wax politiciens yi nekkul ca ko féet ak makeek na ca opposition ba la yemale ñoom ñëpp recadré na teg leen parce que sénégalais la boo xam ne dafa am vision am gis-gisam toog di ko wax jour et nuit donc kum neex kum yi yéen ñu koy menacer et tout da ngeen a gëmul dara. ne ku mel ni da ngeen ko war a apprécier ndax moo leen teg ci yoon waaye fii ne ku àndul ci benn côté rek ñu ne yow bokkoo te loolu wër te nekk gis nga sama bu fi nekkoon ma rab ko mais dama rabul dama ko bàyyeeg butigu laay kon nag gars yi yéen a gis mi ngi noonu teglu ngeen ko léegi nag ñu ñëwaat ci beneen morceau bi nga xam ne si moo ci topp blacklist bi ah mi ngi noonu après ngeen xam toujours fu mu inspiré ak super étoile lan la ñu dóor ci suuf Youssou lan la fa woy loo xam ne yàggoon na kon nag déglu leen bii après <laughs> yéen a mu gën a xam. nit la ci gëna jox cër kon ba ni xaar dama la gëna fonk waaw ci ndigg la ndox mi ne bu tuuroo ndaw si lay xont dina ci jële jafte set u neuf moo laaj bi am tont day jëwa sin ci matu rek mënoon ci faatu man su ma doon baayam de bugguma mujj du mel ni rangu dëgg la gaa ñun mënuñu am ceeb te gisuñu mbay mais bugguma am doomu mag mel ni paulis mbay bëgguma jur lu bon na avorté sax duma ko réccu bëgguma am doomu mel ni ëmm di bajaan amet way dafa daan yeete ne bu yu bu jon seek tey bi fi xew daa laa ko gone yi di way sek def kumpataatu neen ñàkk suturaal man bëgguma am doomu alku rek ni aadamoo bëgg naa mën jur lu baax jub te liggéey ci lay xarañ mais bëgguma am doomu màgg di mel ni ñaa yenn doom yi tey jur ko gàcce la mën na rey dina fi ba way wudul fay doom bu rey ci Pape Mbaye dooma sax ci xol ba lu ko laal ndey da koy yëkk bugguma jur lu mel ni dix mille problème noo doy na sëkk fii mag mu fi yaru ca ba muy ndaw la ko yar dal man su ma namee jur tusta sar yàlla na naa yara dal yàlla maa ngi ñaan doom ju am fayda bañ a nekk jaam bañ a mel ni Ouzin Keita bëgg naa am doom bu jigéen sama yaay lay tudd bu ne ree nday ñaay ban na yaa bu juddoo laa koy kudd bëgguma am doomu sàcc alalu réew mi pàcco mais bëgguma am mu màgg wane taat yi ne mbàcco yaay yoo gis bëgg na am doom bu góor mais bu sañoon du ñëw di wane ci coom bi ne du du ngóor yow di ko ji ci métti bu naree nekk sama doom yàlla bu ma juddu bu naree am yàlla naa yoom bëgg naa am doom mu sagal réewam ni bokkande waaye bëgguma am doom ju a fen ni kunkande ku sa askan war nga yaru di ko jàngale mais bugguma jur député buy saagante assemblée mar naan bu la taxee naan pootit e gore woo man de bugguma jur ji le bakkan ni omaro fii ba yore lampi leer fàtte ni bàmmeel moo wéet man de bugguma doon père ci doom ju bew ni moo suba du añ du reer bu mu tax nga ni doo ko sóor fii way kacc kacc lay wër youtube lu bon rek ngay gis instagram du li la tiktok mau kërëk iblis facebook mau feesal safara réew mu fi dem ndaw ña fa ne ñoo ko joob fii nanguwuñu joob xanaa coow rek politique yi coob yéen a ko gis déggal ngeen sa suñu bopp dama bëgg gis waxuma la salon bi super étoile di dóor foofu mais paroles yi waa ji wax ak lu mu la koy coûté ak risque bi muy risqué rappeurs yi dégg ngeen ay rappeurs yu tekkiwul dara ay xurum xàq di wooye seen bopp ay rappeur xam nga bu yàq deru rappeur la kii mooy vrai rappeur koo xam day yow leen wax actualité di dem di leen gëstu koo xam ne ca at ya ca woon gannaaw dangay ngay dégg ba léegi ñu naan la ko ci bar ma newoon na jigéen soppaltu bul wóoru buur nu mbokk yooyu yëpp ngeen ko doon dégg ko ci ñaata at la fi nekkoon Youssou Ndour la fi leen wayoon lii sawaruma am doom wax na leen bu ngeen demee ci YouTube na ngeen tàppe sawaruma am doom bu Youssou Ndour ngeen déglu ko du début jusqu'à la fin ngeen déglu lu Youssou yi donc nguur si kuy gëstu la jël li nga xam mooy rab bi nga xam ni ñu ko taxawal ñu ne fi naan dañuy clashante di saagaante di waxante ñooy def ay tendance yu kenn xamul mooy baadoole yu ne fii di wone seen yu bon di wax yu bon di saaga dem am ay milliards de vues ñu naan ay vues mais vie yooyu ñu ngi yàq seen ay doom di yàq suñu ay doom parce que amuñu xam-xam duñu wax lu am njariñ lu dul saaga yaay jàmbur wax wax ju ñaaw def lu ñaaw jëf lu ñaaw ñooñu duñ ay référence duñ ci ay référence doom moo tax moom mii distingué boppam ci rappeur yi di ko ñaanal yàlla dimbali ko na kon ne ci lii muy def leen teg booy bul ragal xam naa doo tapet doo ragal waaw mais sa bàyyi Youssou mais lii yëpp ngeen di woy tey da leen ko woyoon démb ak bërki dem ba gaa yi toog ñi ngi ko doon fecc di ko teg mais xamuñu woon tey la ñuy doog xam woy yooyu lan la signifié te ñu mel ne yow di ñëw di jëlaat woy yooyu ñëw di ko tegaat dina valoriser li nga xam ne si mooy gaynde gi nga xam ne si ah légende vivante la bu nekk Sénégal te lépp lu ngeen def ci moom lu mel ni hommage la yéen a ngi koy sargal du matin au soir mu di ko gis voilà leer na ma ne Youssou Ndour billaay bu bersi ak fu mu doon nekk bu doon instant yi concert am duñ fa yéeg te yow yego ci seen ba kooku man lu mu mën a garanti la waat ko ci kaamil lu mu mën a doon kon nag gars yi Youssou wàññi ko jàll na gars yi ñoom dafa naa ne feeg ay fan da ngeen doon bojo bojo man wax ak bojo bojo di nga ku fi kàcceeti amatul ñuy ruse daañu ne sa waay non wàññi quoi sama gars yi man ñi ma ci xam ñi ma ko war a wax dafa bari donc amul amuñu lu remercier Youssou Ndour di remercier Bouba Ndour mi nga xam ne si moo produire single boobu ñuy xaar nag li nga xam ne si mooy album ba te mi ngi bëgg a ñëw waa gis nga aar du dem pension li ñuy xeex mooy ñaata at lañ koy yóbbu Youssou Ndour yàlla na sa fan gudd Youssou la Sénégal a besoin de toi l'Afrique a besoin de toi waaye le monde a besoin de toi voilà ka lay wuutu dafa ñëwagul parce que bis bu ñëwee dana def way boo xam bu fi génnee benn titre ñu ñu ne titre ba nañ ci discuter ban chanteur ngeen di dégg Sénégal yéen ñi may wax prêter woon ci attention ne leen ma kan moo fi woy way bi ñu génn coow ci way bi mu indi ay wax kii lay waxal waxul ak kee kooku mooy waaju day toog ci teleem wala affaire bi setaan mais li ngeen dul gis moom moo koy gis ñëw di leen ci tontu di leen ci wax di leen ci créer di leen ci bindal ku ñëw nag ku neex na yaa moom mais wàññi ko bu ma neexee gis sama bopp yow da nga gis sa bopp ñii ñoo koy attribué diw ak diw ak diw mën nañ leen ci montel bi lu jeex parce que kat ci kat yi léegi ñoo ëpp wax ko dëgg yi ñiy wax dëgg dañoo tuuti donc Youssou Ndour ñëpp lay waxal il n'a pas le temps de rester ici di tontu ay golo yu tekkiwul dara ñoo xam ne seen ndey liggéeyul tous lu dul la mu doon wax sawaru mu am doom di merloo seen i ndey di jooyloo seen i baay te mënuñ ci lenn ñooñu mooy jeunesse tey bii voilà. nangootuñoo jàng dem di taal école yi di yàq euh, table yi ak lépp respecté tuñ maître bu leen di jàngal respecté seen directeur respecté seen ndey respecté suñu baay respecté tuñ kenn na dul àdduna lu dul réseaux sociaux bii lañ gëm topp ay imbéciles yu tekkiwul dara ay golo yoo xam ne dara liggéeyuñ ko lu toog fii naan yuuxu def naa vidéo activiste la man activiste bi man lii man laa yalwaan lañ fi nekk di matin au soir lu ñu am amuñu tous sarax leen ma lii lii laa war a dunde lee laa war a am kenn ku ci ñax amul xool leen ñii di wax activiste lañ ñoo ñëpp ne ma kii liggéey bii la am wala lii kenn defu ko ci zéro lu dul patriote yeeg ndangam nangam yónnee leen ma lii li ngeen bëgg dafa yomb suñ doom yi dañ doon jàng waaw Cheikh Anta Diop ak ñu mel ne moom hmm? ak ñi nekk président ay ñoom Macky Sall yi ngeen di wax tey dañoo jàngoon am passage buñ jaar waaye toog fi di yalwaan dajalee leen ma jox leen ma dugg na fii génn kërëb këram ndax génn naa ci vidéo bi xàmmee ngeen ma danaa ne man activiste laa rek yooyu yeewu leen ci buti ko laay dinañ ko suivre moom mii waaw kii Youssou référence am la waa ji actualité day mel ne journal bi bu ngeen yeewoo loolu leen di liiral dafa leen ko ci rap tegal leen ko nag ci riidam bu la neex waaw gisa game bi ah waa ji moo ko yor actuellement mu neex leen ak mu naqari leen Youssou nduur nag ah lu leen neex na ngeen ko wax patt lay def waaye saa su géddee rek feu et flamme lay def bu dóoree rek ñu xam ne balba ba àgg na waaw paral bu mu wax gi ngeen ni wàññi ko wàññi ko déglu leen fan yi ak weer yi ak at yi ba keroog album bi génn loolu ngeen dégg daañ fu jëlawaat beneen xam-xam peace and love di ko nuyu di nuyu staffam waaw Par di nuyu li nga xam ne si mooy Mara saint di nuyu euh, ñoom Ngoné Ndour ñoom Abi ñoom ñëpp ñoom jaga ñoom ibu gayap yëpp nuyu naa di len ziar ak képp koo xam bëgg nga Youssou Ndour di nuyu nak ñi nga xam si fans club am yi nga xam ñoom melne taxaw lu mel juste ci xel ak ci xol yu les fashion de Youssou Ndour euh, super étoile nangam nangam kërëb kërëb ñi nga xam fans club bi dañoo bari ñoom ñëpp maa ngi di nuyu ta video bi dañ ko jël di ko partager nay gën a yaatu Youssou Ndour légende la Youssou Ndour mooy koo xam ne si ku ko jéem a yàq da nga yàqu yàlla bu defaree nga bëgg na déet yaay sonn dong bëgg Youssou Ndour noppal sa bopp la bañ Youssou Ndour mooy coono àdduna ak bu àllaaxira kenn mënu ci toos peace and love guys ba beneen titre ma ñëw saa su Youssou génne dara naa ñëw fii def sama analyse kenn mënu ci dara te kenn du ko dindi voilà bojo bojo yek buki yeeg xam nga wàññi ko wàññi ko borom bato yeeg borom panfili yéen ñëpp maa ngi leen nuyu bu ngeen jógee ci way wi ku ci nar a kàcceeti nit ah na nga xam ne buñ la nee nii loxo rek ah xamal ne wàññi ko wàññi ko lañ lay wax quoi peace and love guys ba ci fan yi incha ngeen jëf. ah ah sa kattan bari na bari na sa bato gaaw na